mbokk yi asalaamaaleykum ginnaaw bi leen nuyoo ziyaar leen yéen ñi bàyyi xel jamono ji Leral FM Leral point net TV mbokk élection présidentielle mars 2024 jongaane tànn ji turum Sénégal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru ñu nekk di mars 2024 ñi ngi ci dëkk bu sell bi di Touba ànd ak Jibril Khoule tey ñi ngi fi euh, fi nga xam si ni moo di arrondissement Ndam yaakaar naa nag arrondissement Ndam ñëpp xam na ni centre bu mag la fii ci dëkk bu sell bi Touba ndax hôtel bi Touba tey jug nañ teel ba àgg ci lool bureau yu fasantikoo ñëw daal di voté naka na ci li nga xam ne seet nañ ko ci élection ni ki ren na ba ba tax ñu bare bari li ñu doon jortu ni euh, Touba mën naa tàng ba tax ñu bare bare ci askan wi jug nañ xool nga gisee nii ci bureau bi xat la def ba àgg ci lool rang yi gudd a gudd bu ngeen demee itam fu mel ni Daara Xudus naka noonu itam fu mel ni Madiana bureau yu bare bari ci dëkk bu sell bi Touba noonu la mel kon mbokk yi li ñu mën a jàpp jamono ji moo di ëpp ci askan Touba teel nañoo jug daanaka huit ñu bare bari fekk na ci bureau yi ngir ñu mën a amal seen vote xam naa daal nii ñu ko tàmbalee nii suñu ko jeexalee nii yaakaar naa wax dëgg yàlla lu baree baree bari ci loo xam ne war nañoo ko wax moo di ñu baree bari ci askan bi am nañu ok umpale ci anam ba nu war a vote ndax ñi nga xam se moo di enveloppe bi buñ ko dugalee ci kenn war a votel ah

teel nañoo jug tey Touba climat bi féex na ba àgg ci lool gis ngeen rawatina nag jigéen ñi jigéen ñi wax dëgg yàlla macha allah teel nañu jug sol seen yére yu macha allah ñëw ngir ah, def li nga xam si ni mooy dëgg-dëgg mandarga bëgg sa réew mu di amal élection naka noonu itam góor ñi ba ci xale yi noonu lañ koy amalee fii ci dëkk bu sell bi Touba mbokk yi kon euh, Leral TV Leral FM Leral FM Leral TV Leral FM Leral point net dinañ ci ànd ak yéen ci ndoorteelu élection yi ba ngeen di ànd ak ñun 87 point 8 Touba ak Mbacké Leral TV ñi ngi bi TNT bi lépp lu jëm ci élection yi fii ci dëkk bu sell bi Touba dara du leen insha allah rabbi